salaamaaleykum salaamaaleykum sama mbokkum téléspectateurs yi ma leen di bëggee di leen char bu baax a baax di nuyu kilifa diine yeeg kilifa aada yi di nuy képp koo xam ne rek yaa safoo di seetaan li nga xam ne mooy suñu page internet RTT TV les regroupements di terre di leen bëggee bu baax a baax di bëggee ki nga xam ne nee naa la mooy maam alaaj mu ngi ci réalisateur bi njegéen maam as ma koy bëggee bu baax a baax di bëggee ki nga xam ne mooy sama PGD Mamadou Seck di ko bëggee émission bi nag en direct ngeen di am nii tey ci événement bi événement lan korité lañ jëm te événement ko li nga xam ne mooy pombiteer tey nag ma toog nga xam nee naa la ak soble fii lañ ko bayee fan lañ ko bayee ci ak Thiès kaay dëkk ñaari gaar ma toogal seeg nag ay ndaanaan ñi nga xam ne ñoo ko géré toogal seeg ki nga xam ne responsable télé fi nga xam ne tamit mooy ci biir CNG bi mu ngi noonu ma jox ko rek mu présenté nuyoo ñu doogay dugg ci question yi. Euh, man maay euh, Momath euh, Cissé nekk te ñu toftal ma ci Momar Ndao mi nga xam ne moo nekk sunu président national. ma ñëwoon nag fii seet sama xarit di commerçant bu mag ñuy di yëngatu ci soble si ak pompiteer bi comme ni ma koy defee at mu nekk damay wër marché yi di xool ndax marché bi li war a dugg dugg na te dugg na ci quantité bi ñu bëgg ak ci qualité bi ñu bëgg naam kontaan naa bi ma fekk see fii ci ale gis naa ne pompiteer manqué wu fi soble itam manqué wu fi te qualité bi tam am na prix bi jàppandal na ren daal contrairement ak année yi nga xam ne moo daan am nga xam ne bu ñu ci tolluwaan nga xam ne demande bi dafay ëpp bu ko defee commerçant yu bëri dañuy yokk tubaab di ko wax prix spéculatif may conseiller consommateurs yi nañu ñëw ci marché yi jënd te ñuy éviter butiku quartier yi ndax butiku quartier yi foofu la soble ak pompiteer bi chéré mais pompiteer ak soble chérul ci producteur bi warul la cher aussi ci consomateur bi ndax ñëpp dañu war a mos te prix yi nga xam ne moom la tubaab tubaab tuddee prix spéculatif warul am naam amul fi nga xam ne mooy ci marché Thiès bi ndax bi ma laajee aale li mu mu wax prix bu raisonnable la jël na marge am mais marge bu raisonnable la te loolu lañuy xaar ci ñëpp waaye nag borom boutique bi boo waxee mu ne la man li may jënd bëriwut xëy na mu am lu lu yàqu mais xëy na aussi mu ñàkk lu yàqu mais mënuñu comprendre kilo bi nga teg ci cent francs alors que distance bi ngay parcourir matul sax dix kilomètres ça veut dire quoi ça veut dire que li nga teg dafa ëpp donc li ko mën a faj daal mooy que population yi ñëw ci marché yi jënd marché boo fi ñëwee mën nga am façon boo bëgg at na nga ko bëggee jërëjëf ñu delluwaat ci question yi rek am loo xam ni euh, dañ koy gis chaque événement di ko gis fi nga xam ni mooy ci biki di nga waxee noonu comme côté boobu ñiree jaay ay soble yoo xam ne day cher macha allah di jaay yoo xam ne day cher ba ci borom kër yi day métti si ñoom ñu gis ni comme ni nga ko waxee nii est ce que ñoom xam nañu je sais que ni aale mu ngi fii nga xam ne mooy marché central den jàkkaarloog dernier broché nga xam ne tamit maa ngi tànk taxaw rek ci wet ci buntu place bi dégg ñu ne aale day dox social aale day dimbali tamit askan gi aale day jàppale askan gi ma laaj la ba xam est ce que ñoom pare pour ñëw fii nga xam ne àll nekkee na waaw maanaam ku bu ñu ko déggee li nga wax mm-hmm. mooy ki nga xam ne dafay def ci social mm-hmm. ki nga xam ne tànk xam lu wut mm-hmm. kooku moo jara jàppale ndax boo ko jàppale jàppale nga sa bopp ndax tey jii boo ñëwee nga jënd fii ëllëg si biir mais kenn xamul ki nga xam ne amul frontière ci na muy doxalee mun na am dégg nga maam bu bërëngoo mën na am social boobu yegg ci yow saa yoo ko soxlaa donc mooy jàppalante bi nga xam ne mooy solidarité tubaab tuddee ko dafa war a am si filière bi filière bi mooy lan mooy di producteur au consommateur ku ci nekk gis ci sa boppam ni nga ciy gisee sa bopp nag mooy ku ci nekk nga yéene ko jàmm te ki gën a yéene jàmm sa morom surtout période bi nga xam ne période jaamu yàlla la kontaan naa trop yow mi mën a seede man itam ma mën a seede ne Alé dafay dox ci social ma invité aussi moromam ñëpp ñu dox ci social ndax euh, jamono ji moo ko laaj jamono ji dafa metti ci ñu bari ba nga xam ne solidarité bu amulee dana am ñoo xam ne dañ leen bàyyi en marche te nag jullit ak morom ka même jullit ak jullit wala dëkkandoo ci période yi ñu tollu solidarité la laaj donc kontaan bi nga waxee ne Ali dafay dox ci social te ma man ko def témoin acca mu ngi noonu gis ngeen ko nee naa leen lu ngeen lu leen lëndëmoon ci li nga xam ne rek mooy événement bi lu leen jaaxaloon kar leen ko ci RTT en direct nee naa leen tey dara du yomb ci événement bi ñëw leen fii nga xam ne mooy marché central dend ak dernière brochée ngeen laajte fi nga xam ne mooy magasin ale borom social bi ki nga xam ne ci social rek a ko ñor dégg ngeen lu présent bi wax dégg ngeen li nga xam ne tamit assistant la moom tamit nekk fi nga xam ne mooy ci place su ale doon di dox tamit ci wàllum commerce kon képp koo xam ne yaa ngi jënd si koñ wala ngay jënd si biir pikit jaratu ko ko laajteel marché central dernière boritier place su aale borom social yi mu ñëw mu jox leen ci soble yi jox leen ci pombiteer yi seeni i poos oyof sëñ bi looy tàggatoo ak waa RTT. waaw li may tàggatoo rek mooy euh, que ñu ngi dem ci korité ku ne korité nag day wax dépense. mais nañu xalaat ëllëg ne korité dana passé te ñu ngi jëm ci ay fête donc li tubaab di wax borom kër gu nekk na gérer un bon pere de famille c'est-à-dire que dépense yi nga xam ne du nécessité nañu ko moytu te yem ci nga xam ne mooy dépense essentielle yi te xam ne ëllëg dana am te jar na sóoraale jërëjëf ñu dégluwaat kàddu yi kon mu ngi noonu léegi ñu bàyyi la nga tàggatoog waa RTT tàggatoog képp koo xam ne mu ngi lay déglu di la seetaan parce que yaa ngi ànd rek ci émission di Mbeus ak événement parité ni ngeen ñëw mhm. di jouer seen rôle mhm. euh, ndax Sénégal ku ci nekk dafa war a jouer rôle am seen rôle mooy permettre nit ñi amuñu voix ngeen porte seen voix bu ko defee man mi nga xam ne association défense de consommateur laa nekk ma mun a porter sensibilisation bi loolu maa ngi leen ci gërëm di leen sant di leen souhaiter nag une bonne continuation et une bonne fête de Korité baal leen maax ñi ñuy déglu maa ngi leen di balwaax baal naa leen aax jërëjëf acca kaddu yaa ngi noonu mu doon kaddu yoo xam ni kaddu yi sulucé kaddu yi responsabilité kaddu yi kilifa kaddu yoo xam ni ku ko déglu dina xam ni ñii ah jëluñu alal ji dugal ko seen i poos jëluñu soble bi ah di ko denc si biir di ko seeral aale deful loolu aale li muy def xam ngeen ko ñeen waa Thiès laay waxal ñeen ñi nga xam ne ñeen ma safoo di ma bége di ma seetaan tey ndaanaan laa toogal doomu Thiès laa toogal ki nga xam ni adduna dañ koy waxtaanee ki nga xam ni Sénégal dañ koy waxtaanee kii moom laa fas yéene d micro fas yéene waxtaan ak moom muy ale sama waa ji siyaar naa la. maa lay delloo siyaar bu baax ku baax mbaa yaa ci jàmm di siyaare waa RTT TV di siyaare bépp journaliste wala bépp média rek maa ngi leen nuyu te di leen siyaar te leen baalu àq te di leen baal di ñaan bu yàlla boo leen jégal di siyaare sama kilifa gii nga doon jox micro bi léegi di Momar Ciss nga xamante ne activité am yëpp consommateur la. tànkam foo gis mu dawal otoom jublu fa rek xamal ni consommateur tax may dem. su dee wax it xamal ni loolu la mosoo dégg ci benn rajo ma àddu man mosuma koo dégg te waxul ci wàllu consommateur. consommateur nag buñ koy wax dafa am ci fànn booy waxee mooy nga fexe ñu diminuer prix yi mais nag pour nga xam source bi tamit ndax lii mën na wàññi ko wala mënta wàññi ko suñ koy wàññi nan lañ koy wàññee état lan la ci def nga fexe ba lëkkaloo ak état lëkkaloo acteurs yi nga xam ñoo koy indi lëkkaloo ak sa consommateur loolu mooy tax li ngay wax mooy mën a tegu ci yoon loolu nag ñu ngi ko ci jaajëfal baax ndax tamit du fii rek la ñuy nekk su dee Dakar dañ fay tase donte suñu kilifa la ñoo jiituñu ci mbir mi lool ñu ñu nekk commerçant bu ñu demee Dakar réunion ARM dañ koy gis ministère de commerce dañ ko fay fekk ak yeneen yoo xam se ni da cay dem te nun duñ ca dem rawatina bu ñëwee Thiès gii nag day dox tànkam ñëw ba fii sama place toog ñu waxtaan aali noo gisee nangam noo gisee nangam ma ne ko nangam ni laa gisee mu ne ma nii la war a wala nii demee ban déggoo ci loolu loolu nag ki wàcce boppam moo ko man ki nungu am am ndaw ki nungu am am kilifteef moom moo koy def ndaxte ki nungu yilif yilif la moom mooy moom mooy mën a yilifee man mooy sama kilifa moom ci consommateur nekk man maa ngi ci côté waaye teewul mooy sama kilifa ndax moo mag ci at ba pare nag wàcce boppam toog ak man di waxtaan ak man wax dëgg yàlla ba pare nag yilif ma tamit ci consommateur ndax bala ngay nekk commerçant consommateur ngay njëkk nekk njëkk kon loolu ñu ngi ko ciy jaajëfal di leen jaajëfal yéen bu baax a baax mm-hmm. ok jërëjëf ale dégg ngeen ko nee naa leen doomu cees yaa ngi noonu doomu bete bete baa ngi noonu doomu góor gaa ngi noonu kooku soo ko nee kuy sa xarit mun a la Mor Ka Mor Ka ku ko kenn du ko nettali kenn du ko laaj kenn ci àdduna wër nga képp ci Thiès kaay dëkk ñaari gaar nee naa ko mooy sama waaja borom oto yi borom alimentation yi Mor Ka di doomu ndeyam ma koy bëggee bu baax a baax ale doon koo xam ni góor la sànq ale dama ñëw taxaw sa buntu place ma dajeeg benn xale bu jigéen mu ne ma euh, dafa euh, dama doon seet ale pour mu may ma soble ma ne ko ale ndax day ma ale day maye soble day maye capitaine ma ne ko aale mais am na ñu ko ëpp milliard ñu ngi fii ci Thiès kaay dëkk ñaari gaar te defuñu ni aale def mu ne ma aale daal social lay dox loo xam ci loolu. waaw bala ma ñëw ci loolu. Hmm. dama lay confirmer ci Morka. dëgg la Morka du sama xarit. sama doomi ndey la. dëgg la ndax Morka damaa jógee suñu dëkk bay di Njaay. Hmm. sama papa newoon ci marché bii. Hmm. nekk kóllëre papaam. dëgg la muy Alaaji Góora Ka ak Alaaji Góora Njaay mi ma jur man ak Alaaji góor Ka mi papaam. Alaaji Góora Ka moomee nag nekk sama xarit nekkoon tam kilifa ci marché ba tey sax kilifa gi jógul ndax man kër waaye lu ñàkk lu bari ñu xew ñu woo ko ne kaay ak alaaji Moustapha Diop ak alaaji Ousmane Mbaye ak ñooñu consoor goo nga xam se ni ak alaaji imam Moustapha Ndiaye mhm. dama ñëwee man ci dëkk bi ma déggoon ni man kooku xaritam la ma dem xeeñcu ji doomam ba gis doomam li ma gën a neex nag mooy bis bi ma présenté papaam mhm. papaam daf ko ni lu mën a xew del jënd ci moom loolu mooy wax joo xamante ni wax ju ma marqué la mhm. bu ko neexoon day yam ci nuyoo rek pare ci loolu. ba ko papaam tamit nekkoon kilifa UNACOIS nekk tamit kilifa ci chambre de commerce ak suñu kilifa suñu président Abdoulaye Diop ak Mamadou Diop loolu bu ñu fa demee ñun man mii maa fi xale boo xam seen tey ci Sénégal gii laax de waxte naa de Thiès su ma demee seen biir jotaay man maa ciy toog ña fa nekk ñëpp ay kilifa lañ ay mag lañ kon mook ma lay firndeel ni du sama xarit sama doomi ndey la di ko siyaare bi à euh, ak Demba Diallo acca mu ngi noonu dégg ngeen ko li mu wax noonu ba tey ñu nekkaat ci beneen sujet bi mooy troisième bi ma la laaj muy nee la ñëw naa sànq ci place bi nga xam ni man kuy dox ci social rek laa yàkkamtee dem dégg ko sama micro man tamit damaa yàkkamti koo xam ne rek nee ñu day defal te yàlla tax te séntuwu ci lenn moo tax man damay yàkkamti rek waa RTT ànd ak ñoom jubali fa dégg la sama micro waxtaan ak yow man laaj la social bi lan moo tax nga koy dund ak waa Thiès lan moo tax nga koy dund àdduna ak wér ba ñëpp di ko waxtaanee. waa man sama maam laa ko jëlee. fekkewu ma nag sama maam. waaye damaa gis sama papa di ko def. ma toog ak sama soxna si maam bu góor soxnaam ci boppam di waajur ci suñu papa Baye Mbala Ndiaye ma koy nuyu ma ci marché bi mu wax ma ay fee yu sama maam daan def kenn ma tudde man. xam moom mooy sama moom ju moo jur sama papa. sa maam day daraan bay dugub ba mu ñor. ma def ko ci benn bërigo di ko séddale. wala ñu bay tool ba mu ñor mu ne ko bëgg kaay nga jël loolu dégg naa ko sama maam kenn jóob ajaratu kenn jóob dégg ko sama beneen nit fii yàggul dara wax na ma ko ma dégg ko samay waajur sama waajur bu góor bi ma jur di def loolu nga xam dañuy toog muy jël alalam di ko joxe te di ñu wax ne de di leen joxe seen alal ndax ku joxe doo am te olof Njaay dafa ne képp ku la daa ko joxe bu gën a xeexee mu duma la loolu ma gis ko ci moom gis ko sama mag tamit Alaaji Lamin Njaay Mouhamed Ndiaye nga xam ne seen barki de moo Ndiaye la toog woo ma ne ma damaa bëgg a jënd ab ambulance yóbbu ko ci dëkk bi nga xam sama baay fi la dëkk yóbbu ko ci dëkk bi ma juddoo fi sama yaay ne fi ma màggee fi ma yoroo ba lu ma am foofu laa ko amee ma yóbbu fa ambulance loolu mu def ko yóbbu nañ fa ambulance yàggul dara kon nag man su ma jaaree weneen yoon rek dana bett ñu bëri te su boobaa dana nekk gàcca waaye yoon wu mën a jaar wudul wudul def social gàcca la waaye du dee social rek du nekk gàcca ma ñëw nag ci marché central nekk fi di liggéey gis ni fi li fi am. Mm. yàggul dara 2011 may yanu may yanu fii ay saako. Mm. yor puus-puus di liggéey. Mm. yàlla def na tey ñu nekk ci 2022. ma mën a taxaw ni kat 500000 bii. man maa ko moom. ma gis ñoo xam se ne bëgg nañ junni mu tëleen. ma ne la lu tax pourquoi pas du ma dem jël samay 500000 francs yooyu ñaar dërëm wala junni. ma séddale ko ak ñooñu. loolu moom moom réseau social gis tamit adduna bi ni mu méttee. Mm-hmm. yàlla mm-hmm. séddale wërsëg yàlla ñaar yi fu mu ci am da laa natt bu la mayee da laa natt. Mm-hmm. su la ñam xañee da laa natt da may pour ndax di nga ci dimbali nit ñi te yàlla tax mu xañ la ndax di sant suñ borom ci loolu mu def wala dinga muñ bi mu la mayee ndax di sant bi mu la xañee bi mu la xañ gi sax xañ lan ko moom tuddee rek mais du xañ ndax yaa ngi dund yaa ngi wér yaa ngi lekk yaa ngi naan mais bari le woo comme ni ko bëggee mais yàlla may la def la boole ci ñu ñàkk ñooñu comme ni nga ko ñu koy waxee ci Sénégal ci ci olof xool ndax kii dana muñ lii ma ko teg way laa ko déet soo muñee nag mu boo santee mu dolli kon nag ñun gis ñu loolu kon warteef la ci ñun fi ñu nekk te di gërëm tamit suñu kilifa gi am seen suñ mun taxaa mbàkk moom la ñu war na suñuy wax te lépp li wax mun de leen dimbale lay wax leen def te yàlla tax da leen jàmmonte da leen bëggante da leen soppante xalifa yi fi nekk moom la ñuy wax traversé sëñ sëñ Babacar si Mansour xalifa bii nga xam se moo nekk Tiwaawan muy ñu baax laayeen ku mën a doon rek mën nga fàtte ndax duñu xam ñëpp mais buñ ko joxee kenn rek mel jox nañ ko ñëpp loolu moom mooñ duwa social te Thiès yi fi dëkku ma fi fi yaroo ma fi dama fi liggéey rek waaye mel na ni fi la dëkk li fi mën a am tey ci ay a am ndimbal peut-être mënu ma ko am ci dëkk bi ma dëkk ndax li may nekk Thiès mu la may nekk bayti vraiment na kon maa ngi santaat waa Thiès bu baax a baax di leen gërëm te di am mbégte nag ci loolu waaw loolu daal xam naa ko ci moom. jërëjëf kon ba tey rek ñoo ngi toog ak naa leen sama ndaanaan ju mag ji nee naa la kulli xadrin laa koy wooyee nee naa ko kii yee doom kii yee bëgg waa Thiès kii yee dawul dara ci waa Thiès ma delluwaat di ko waxaat rek ñeen ñi nga xam ni ñeenee jënd katu en gros soble yi ak ñi nga xam ne ñooy jënd pombiteer gi ñu ñëw waxtaan ak moom si social rek lay dox mu yombalal leen ko événement korité lañ ne te xam ngeen ni fere bi day met ñëw leen ngeen seet si ko mu ngi en face dernière borotie yor magasin baax bu sant yàlla ñu fas yéene laa jox nag nga tàggatoog waa askan tàggatee. waaw li may tàggatoo mooy di gërëm bépp jullit mais di gërëm tam bépp doomu aadama rek moo xam ak diina joo mën a nekk maa ngi lay baloo àq te di la bal àq tey ñaan bur yàlla booloo ñu ko jéggal di wax rek Sénégal jàmm moo fi xaj nanu jàmm nañu wut jàmm te wut jàmmoo xam boo amee jàmm te jàmmoo du am njëriñ mais da ngay am jàmm ba pare nga jàmmoo nañu dimbalante nañu yërëmante nañu joxante ay res cër loolu rek moo am solo. di nuyu nag suñu kilifa yëpp travers le délégué général bi nga xam seen moom moo nekk actuellement di délégué marché central nekk président de l'UNACOIS loolu ñu ngi koy nuyu parce que actuellement ni mandaam ja waaye nag intérim moom moo ko géré ba tey wax di yàlla te suñu kilifa la nag sànq ñu ngi toogoon ci benn rajo man ak moom di waxtaan di nuyu ñëpp moo xam loo mën da jaay moo xam lujum la moo xam daara alimentaire la moo xam soble la sama filière oignon maa lay nuyu di nuyu les commerçants di nuyu tailleur tailleur ma taxaw foofu ci tailleur ndax ci juste période bi ñu nekk. su ne ñaar fukki fan des na avant Korité wala avant Tabaski ñoom kenn dootu ci mën a toog sa kër normal jàngoon jàngoonteeg lu métti nag jàngoonteeg lu métti ndax lu métti li mooy di nga am peut-être coupure courant wala nga am facture courant bu diis boo xam ne attanu googu te nit ñi lay ñëw loo fay seeguñu loolu tam da si war a wax te ku sañsee ba jekk téyër moom moo fa jaar su rawatina nag sunu téyëru Sénégal yi yi nga xam seen ñoo fi nekk nga xam seen tey dañuy créer lu bees di la ko jox boo ko solee foo génn ñu ni macha allah. ki créer créer dafa métti dafa jafe ki ko def nag wax dëgg yàlla war nañ ko tàllal si loxo kiy jëf prêt-à-porter jaay dàll ba ci ambulant bi pousse-pousse bi nga xam seen tey day yanu bagage man ñooñu laa gën a bëgg sama àdduna ndax ci laa jaar muy liggéey bu métti mais liggéey boo xam seen dafay muñ loo doomu aadama day tàggat xol di siyaare ñëpp di ñaanalaat ñëpp di siyaare suñu kilifa yi jiite maire yi ak préfet gouverneur tribunal police surtout police surtout gendarmerie man ñooñu boo xam seen spécial lay nekk. ndax li tax mooy police bi ñu am ñun Sénégal ak gendarmerie bi ñu am service d'hygiène muy contrôle économique muy douane ak comme ci mën a doon rek soo fa demee dana la jox dana la jox xam seen yow day pour yow sax yëlloo ko. pas li nga jiite mais ak keneen rawatina police ak gendarmerie ñooñu dañ leen war a delloo njukkal comme du tëdd du nelaw te saa ay problème ñu ne police moo tax wala gendarmerie kooku waroo ko wax benn baat du ñagas te wallaahi laa sim de yàlla rek moo ma tax di wax. parce que nag ku dee ak sa bàmmeel te alxuraan moo ne wa maa sahid naa ilaa maa naa seede li ngeen xam ci seen mbokk yi ci lu rafet boo xamee lu ñaaw noppil noppil mais ñu lu ma xam ci ñoom lu rafet la muy les maires yi muy soog a installé ñoo ngi leen tàllal suñu loxo ci marché bi ci marché yëpp mais rawatina ci marché mais rawatina foire yi am ci biir dëkk bi nañu xam ne ñun seeni njaboot lañ ñun duñu seeni noon ñun ay commerçant lañ dañuy yaxantu ñoo créé suñu entreprise spécial ci suñu kamtalaay kattan suñu propre moyen ñoom dañoo war a jàppale waruñu ko yàq peut-être jumluwuñ ci yàq ko mais dama bëgg ñu toog waxtaan chambre de commerce joxante loxo chambre de métier tu ñu waxtaanaat ak maire yi fi nekk organisation foire yi yi ni mu mel te ñu soxla ay nit ñu fi di liggéey mooy tali bi ñu occupé te loolu occupation tali bi mën na nekk nit ki mais responsabilité maire ma ngi ci mën nañu organiser wu ci espace yi am ci biir dëkk bi ci biir marché bi centre commercial parce que dégg naa tamit loolu dama ci profité waxaale ko am na projet boo xam seen dégg naa ko ci làmmiñu maire dégg naa ko ci promoteur bi koy defar ñu ni ña ngi pare pour defaraat îlot yi pour def ko R plus 1 wala 2 pour defaraat centre commercial yi fi nekk loolu man dama koo def fierté parce que maire bi nag loolu daf ko defoon ci bilan bi muy campagne mais bu ñëwee dëggalaat ko démb tam mu ñëw fi yónnee fi ay nit jënd fi tam social parce que bu social la ñu wax gis ku nekk maire ci commune bii. tey ñu fal la yàggul deux mois nga yónni sa say ndaw ñëw jënd fii soble pour joxe ko loolu waras na ko wax même tam boo boo ko yàggal ba xam te ne ñoo ñàkk jënd nañ fi yàggul dara huit tonnes soble joxe ko travers de madame la ministre Ndeye bu Ndiéguène wax dëgg yàlla loolu warees na koo mën a wax mm-hmm. ndax lékkul yàgg naa lu ñaaw mm-hmm. te def def la bu rafet comme da leen di wax dañ leen dimbali nit ñi suñuy dimbali war na leen wax ne dimbali ngeen kon yàlla na leen yàlla defal jàmm ci yow bu baax di kontaanaat nag seen seen kilifa di suñu président ñun ñëpp parce que bu ñu nee téer Mamadou Seck jiite ko te ñu ak moom presque ay ati ati at depuis ca Ndiaga Wade bi mu nekkee président régional fii bi Ndiaga Wade wàccee ba Ndiaga tey jii nekk sama kóllëre sama xarit la yàlla sama xarit la Ibrahima Fall bu ma leen limee mën naa juum parce may xarit lañ jàgg nañ ñëw ci man di ma kaay ñu tudde la nangam nga ñëw bokk ci loolu ki la def mooy ki la yëg aw ma dara yoruma ay millions ma yoxu ay junni ma la jox waaye coono pour ñoom Aly Ndiaye ci dëkk bi dëkk jeune la ma ngi liggéey war nañ ko mën a boole seen i mbir lu ñu liggéey boole ma ci Seck ñoo koy ñaanal jàmm yal na ko yàlla defal jàmm ak fu mu jëm ak li mu jiite yal na ci am lu kawe njortam ñi mu jiite yàlla buñ ci gis lu leen naqar yàlla buñ ci gàcca di nuyu ñëpp nag ku ma fàtte rek nag ma baal ne man nitu nit ñi laa jërëjëf jërëjëf mu ngi noonu gis ngeen ko en bi ngeen doon am ak DJ Mbeus ak Alé nee naa doomu Thiès bi doomu gor bi sama yaay xaaral sa soble mu ngi ñëw Alé lay jox nee na sa korité moom jekk na ba pare acca di bëggee waa RTT di bëggee képp koo xam ne rek yaa ngi safoo di seetaan RTT di safoo di seetaan DJ Mbeus borom yëngal gësam Mamalaaji Rizi ñu dem dugaat ci beneen côté